moo digle woon ñu di ko santle boroomam joxe ci nag ay tegtal ñu koy def bañ juddoo ba tey fekk ñu di ko def mu doon bis bu am solo ci yoonu murit di bis bu am solo ci koom-koomu Sénégal di bis bu am solo ci yoonu lislaam ñuy sant yàlla biñ ko fekkee safar gi fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar euh, di am kontante di ko partager ak waa Touba ak umma islamique bi yëpp impactam nag ak importance am rëy na ndax euh, Serigne Touba lu neem dayo la ndonte euh, assamalaak nag bis bii nga xamante muy bis ci biir bis yi ndax euh, ñu dey lépp loo xamante ne tegtal la ak diggal bu ñu xëyee ñetti fan bu ñu ne léegi sax bu ñu ubbee safar gi rek dañ ciy ne bañ tëj safar gi kon nag euh, dañ ciy ndokkeel jullit yi di ci ndokkeel mbokku taalibe yi di ci félicité tamit Euh, xalif général kullu murit euh, Cheikh Mountakha Mbacké sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi sant Serigne Touba sant aussi bi nga xamante ne euh, président de la république mi nga xamante ne duñu gëj duñu taxaw ci di ko sant ci confiance bi nga xamante ne am na ko ci ñun

ak yemb ku ñu ko yeggalee ak jàmm euh, di ci gërëmaat vraiment le président de la république ci confiance am ah di wax tamit euh, tàggoo naa ak waa HLM Keroog ba ñu jokkalante ak ki nga xamante ne moom ma fa wutu muy Mamadou Diagne si Mbengue ñu di ko féliciter encore ci moom tamit ndombo tànk boobu ak confiance bu bees bi. ñuy xaar ñu nit xam naa incha allah euh, passage de témoin bi nga xamante ne dana am ci Sicap ñuy yaakaar ne dinañ ci am taxawaay en tout cas dinañ ci suñu kem kàttan ba nga xamante ne projet yi nga xamante ne moom la président naal ci wàllu dëkkuwaay euh, ñu fexe ba Sicap mën cee dox jéego yi nga xamante ne mooy jéego yi war.

ndax euh, ba ñu ànd moom ba tey aussi gis nañu confiance bi nga xamante ne def nañu ko ci biir secteur bi ba ñu nekkee conseil technique am ci wàllu woow ba mu ñu joxee présidence conseil surveillance ANAT ba mu ñu dénkee SNHLM ba tey mu dénkuñu si kat jumaa jooju di Masalikul Jinaan nga xamante ne dafa doon sagu jullit yëpp doon sagu yoonu murit di firndeel liggéey bi nga xamante ne Serigne Touba liggéey na ko du jumaa kese jumaa la ak li ko wër ak la mu ëmb maanaam ñun tey bu doon urbanisme dañ naan projet urbain la ndax pro li tax mu doon projet urbain dafa am lu mu indi ci wàllu infrastructure yu ko wër dem ak dikk bi ndax am na route yu ko ceinturé am na projet assainissement yeesalaat na tamit. Euh, xar kanamu euh, maanaam gox boobu nga xamante ne fa lañ ko def muy diggante Colobane HLM euh, ak bopp ak waagu ñaay euh, kon xam nga loolu nekk na wàll woo xamante ne wàll wu am solo la donc buñ ko doon xayma daal ñu ne ndam laa ngi ci la mu tënk lépp ci wàllu urbanisme ci wàllu dem ak dikk ci wàllu infrastructure routière ci wàllu assainissement Euh, ak tey jii nii nag maintenant ci jëmm jooju nga xamante ne moom la euh, projet bi am te muy architecture dugg ci ingénieur yi dugg ci finance dugg ci salaatu